كن كاتما لدؤر وبؤس واتنا خسدا وتعالى جلاء متخالما خسدان كن كاتما ليدو أروا سواتنا خسدان ودعا على الجلاء متخالما حسدا كن كاتما ليدو أروا بوسواتنا حسدا وتعالى الجلايا متخالما حسدا لا لا لا تسريس سكوى فكن متجلدا حتى تسن الناس آه. نكم والأموال للجيل لا لا لا تسريس سكوى فكن متجلدا حتى تسن الناس آه. نكم والأموال للجيل لا تغسري تقوى فكل متجلدا أتى تنسون ناس نكم الأموال متجللا بل لا لا تؤثري فكل متجللا أتى تسن الناس نكم والأوان متجلل الأنت لا تؤثري سكوى فكن متجلدا أتى تنسون ناس نكم الأوان متجلد لا ت- ناس آه فاليوم yàlla sunu borom dina jëm لا tabaraka wa taala dina jëm يدان من يخشى توا borom waxtu juróomi dina jëm بربونا حب دار سغر dina jëm راديو الإمام نرجي لها فاليوم
yàlla sunu borom dina jëm لا tabaraka wa taala dina jëm يدان لمن يخشى توا borom waxtu juróomi dina jëm بربونا حب دار سغر dina jëm راديو الإمام فاليوم yàlla sunu borom dina jëm لا tabaraka wa taala dina jëm يطال من يخشى توا borom waxtu juróomi dina jëm بربونا حب دان سغر dina jëm راديو الإمام داوم Seydina Muhammad dina jëm
على borom Makka ak Madina dina jëm درس الهلام مطالعا ay Fatima ak Zeynabu dina jëm يا وياتي
dina ترى jëm يتجام جموع داوم borom lambar na dina jëm على borom mayo me dina jëm على borom kutumi dina jëm درس الخلام مطالعا borom doomi kurman jaw dina يا jëm ويات الأترى يتجام جماعا داوم borom lambar nag mayo me dina jëm
على borom kutumi ak doomi dina jëm درس الخلام مطالعا borom doomi kurman jaw dina jëm يا ويات الأترى يتجام جماعا على درس داوم borom lambar nag mayo me dina jëm
على xalifa Seexal Xaadim Mbàkke dina jëm درس الخلام مطالعا xalifa Seexal Xaadim Mbàkke bàyyi Seex Moodu Musaa Mbàkke bàyyi sëñ Seex Mbàkke gën a fan ma maami sëñ Mbàkke soxna loo borom diif ak bay la bàyyi Seex Musaa Njëñ Mbàkke dina jëm درس الخلام مطالعا xalifa Sëriñ Fallu Mbàkke borom di ndek Samba Yàlla ji Bara Mbàkke bàyyi sëñ Takku Mbàkke bàyyi Seex Umi Mbàkke sëñ Fallu Mbàkke bàyyi Seex Abdu Karim Mbàkke bàyyi Seex Bu Mbàkke bàyyi Seex Murtala Mbàkke Sëriñ Fallu Mbàkke bàyyi sëñ Takku Mbàkke
الخلاب متالعا maa ngi maam Thierno Ibrahima Fati sëriñu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Ngunda maam Sey Ndiaye Lamp Talla Modou Mbenn Fall Lamp maam Idri Fassane Fall Lamp maam Cheikh Ndigal Fall Lamp maam Cheikh Jëmbu Fall Lamp maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp maam Cheikh Moussa Fati Kara Fall maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf
داوم هلا داوم هلا داوم هلا درس ال- xalifa Cheikh Al Khadim Mbacke magi Cheikh Massamba Mbacke Cheikh Massamba Mbacke Cheikh Mamadou Diobé Mbacke Cheikh Abdou Bakhe Mbacke moom Cheikh Massamba Mbacke sëñ Mamor Mbacke moom Cheikh Massamba Mbacke Cheikh Modou Fati Karim Mbacke sëñ Fallou Mbacke moom Cheikh Modou Fati Karim Mbacke Cheikh Massamba Mbacke borom Touba Mbéla jërëjëf
أنا xalifa Cheikh Al Khadim Mbacke maam Thierno Ibrahima Fati borom Bayti ak Makama sëñ Aydara Mbacke maam Thierno Mbacke borom jàmm ak yërmande jërëjëf
درس الخلاب متالعا xalifa jeexal xadim mbàkke koo defal sëñ Siré Lo borom sonn borom bàkk bu ñu barkeel bi borom saxandatu daara ni xalifa sëñ Sarif Lo borom jàmm ak yërmande borom saxandatu daara ni xalifa sëñ Siré Lo borom sonn jërëjëf داوم هلا داوم هلا داوم هلا درس ال- ala ma jangay sigi maam jaara bu sax ma jàpp borokan ay waay mbooloo mi ku may dimbali jóg taxaw ca kaw màggal sëñ Siré Lo borom bàkk bu ñu barkeel bi jërëjëf
داوم هلا داوم هلا درس ال- xalifa maam Cerno Ibrahima Fati borom bayteeg maqama Seex Balla Mbàkke Seex Mudaa Balla Mbàkke Alaaji maam Cerno Mbàkke maam Cerno Aydara Mbàkke borom Mbàkke bu ñu barkeel bi borom saadatu daarayni maam Cerno Aydara Mbàkke jërëjëf
داوم هلا داوم هلا داوم هلا درس ال- xalifa sëriñ Baara Mbàkke borom guy Mbindang Mbàkke Kajoor sëñ Musayn Baara Mbàkke sëriñ Xaadim Awa Mbàkke moom sëñ Baara Mbàkke sëñ Baara Mbàkke bàyyi Seex Sidi El Muxtaar Mbàkke borom guy bind ak kàddu gi ak kàddu gi ak Mbàkke Kajoor Seex Sidi El Muxtaar Mbàkke borom kër ngan nag tawfeex dira jëf
أنا xalifa sëñ Baara Mbàkke dira jëf درس ال- sëñ Musayn Baara dira jëf Seex Masamba Mbàkke dira jëf درس ال- Seex Mamadu Joobe dira jëf درس ال- kàddu Mbàkke dira jëf درسل sëñ Masamba dira jëf درسل Seex Moodu Faari dira jëf درسل Sëriñ Saalu dira jëf درسل درسل درسل درسل درسل درسل درسل درسل درسل درسل درسل درسل درسل درسل درسل درسل درسل غلام مطالعا Bala ma ja ngay sigi maam jaara bu sa ma ja boroxan ay waay mbooloo mi ku may dimbali jóg taxaw sa kaw màggal Sëriñ Saaliw Mbàkke borom jàmm ak yërmande jërëjëf داوم هلا داوم هلا داوم هلا درسل xalifa Seexal Xadim Mbàkke koo defal Seex Masamba Jóob sam Seex mu Jóob Masamba Seex Moodu Badar Jóob Seex du Waab Jóob xalifa sëñ Daro borom sanna borom Mbàkke mu ñu barkeel bi jërëjëf أنا xalifa sëñ Daro Asan Njaay jërëjëf درسل sëñ Bay Falloo Njaay jërëjëf درسل sëñ Seex Mariam bu Njaay jërëjëf درسل xalifa sëñ Mbàkke soxna la درسل borom kii fag bay la Darsil.
ay Seex Musa Darsil.
Sëriñ Saalu jërëjëf Darsil.
Seex Moodu Musa Darsil.
jërëjëf sëñ Mbàkke jërëjëf Darsil.
borom tey jërëjëf درسل درسل درسل درسل درسل درسل غلام مطالعا xalifa sëñ Mbàkke soxna loo borom tey fag bay la bàyyi Seex Musa Njañ Njañ Njañ Njañ Njañ Mbàkke borom tey fag bay la ak ni booje bàyyi sëñ Xaadim Mbàkke jërëjëf
داوم هلا داوم هلا داوم هلا درس ال- xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp daa bay maam Sey Ndiaye Lamp ngunda maam Sey Ndiaye Lamp maami Cheikh Ndigal Fall Lamp maami Cheikh Jëmb Fall Lamp maami Cheikh Baydru Fall Alxuraan Lamp maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp maami Cheikh Ndigal Fall jërëjëf
داوم xalifa Sëriñ Saliou Mbàkke borom jàmm ak yërmande jërëjëf داوم jàmbari Cheikh Béthio Thioune jërëjëf xalifa Cheikh Moudou Moussa jërëjëf xalifa Cheikh Mourtala
أثاء يتجمجمعا أين لا تمشي ولا مطالع لكن يا مطالع لا xalifa sëriñ Bara Mbacke dina jàpp لا لا تستقل xalifa sëñ Mbacke soxna loo borom tii fak bay la bay jeex Moussa Ndiagne Mbacke sëñ Mbacke soxna loo sëriñum sëñ Daaru Asan Njaay dina jàpp
لا تستقل
xalifa
لا لا تستخل xalifa sëñ Mbacke Madina borom Madina bu mbale xar yàlla bay jeex bu mbali Mbacke bay sëñ Cheikh Gaïndé Mbacke Sebra Mbacke borom ñaamar Cheikh Rahman Mbacke dina jàpp
لا xalifa sëriñ Saliou Mbacke yal na yàlla dolli leeram dina jàpp تستخل bay sëñ Cheikh Saliou Mbacke dina jàpp bay تستخل sëñ Baydru Saliou dina jàpp تستخل xalifa Cheikh Moudou Moussa dina jàpp برزقي xalifa Cheikh Massamba dina jàpp شاب الورى yaa ma mën a jombe dina jàpp
تجلال ليلة dina صالح jàpp يتعلمون لا تستخل بسكرة الورى تزكي الهوى واظهر xalifa si Abdou Khadir Mbacke Baye Cheikh Moudou Abdou Khadir Mbacke si Abdou Khadir Mbacke Baye Cheikh Badru Mbacke borom Touba Mouré dina jàpp
واصل إله واصل إله واصل إلهي واصل إلهي xalifa Mame Thierno Ibrahima Fati borom Bayti ak Maqam Ousmane ak Aydara Cheikh Balla Mbacke Cheikh Modou Balla Mbacke Cheikh Modou Kara Nourine borom si koor yi dina jàpp واصل إلهي واصل إلهي واصل إلهي واصل إلهي واصل إلهي xalifa Cheikh Al Khadim Mbacke borom Bayti ak Maqam Cheikh Balla Mbacke Cheikh Modou Balla Mbacke Mame Thierno Aydara Mbacke dina jàpp
واظهر bëgg maam Thierno ay dara yëkkati sa loxo ca ka ñu màggal ko dina jàpp إلهي xalifa Serigne Saliou Mbacke dina jàpp بدينه Cheikh Modou Moustapha Fall dina jàpp بدينه Mame Gandi Fall dina jàpp بدينه xalifa Serigne Bassirou dina jàpp بدينه borom beeg mektar bi dina jàpp بدينه Serigne Saliou Mbacke dina jàpp لديني لديني لديني متحافظا xalifa Serigne Saliou Mbacke borom Jannatul Mawa Serigne Saliou Mbacke borom Kabat Lagat Njurul Ngeejat Serigne Saliou Mbacke yal na yàlla dolli leeram jàmbari Cheikh Béthio Thioune dina jàpp
وصل إلى وصل إلى لديني متحافظا xalifa seexal xadim Mbàkke koo defal seex Ibrahima Diop Masar defal sëñ Mbàkke Diop borom kalsan koo defal sëñ Ibrahima borom Sanda Tour daara ne xalifa sëñ Sira Lo borom Sanna xalifa sëñ Serif Lo borom Mbàkke bu ñu barkeel bi dina jàpp وصل إلى وصل إلى لديني متحافظا xalifa sëñ Sira Lo borom Sanna borom Mbàkke bu ñu barkeel bi yàlla yàlla dolli leeram borom Sanda Tour daara ne xalifa sëñ Serif Lo borom jàmm ak yërmande dina jàpp إلا يا لا المعاد المجرمات يا بعتزل انت تنمل عن عرضا لا تسلم ولا انت تنمل انت تنمل من رضا لا كمبنينا لا تستري دنيا بيوخ ayamata mandanu درجة بدجا فسيندم لا دنيا من بانو من بانو بدجا بامبا لا لا لا تزتري دنيا بيو raya betawa mandano dan biduja biduja fasayen demola
mbooloo mi xasaay di day far bàkkaar na ñëpp maa si jug taxaw te ko yël bu tàggoog bàkkaar ba seen wicc jug leen màgg sëñ Bamba yël bu tàggoog bàkkaar ano biduja simamu warasiri سمام ورا وسري سمام ورا وسري لدى الله بدلا في يدي وما رمته من مالك خاد بالأني سمام وراء حسري لدى الله في يدي وما رمت من مالك أخاد بالأني سمام وراء أسر لدى الله في يدي وما رمت من مالك خاد بالعلي سيد الأولين محمد محمد محمد سيد الأولين محمد محمد سيد الأولين والآخرين الذي لم يخلق مثله بك لم يبدو مثل مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى أنا صبي سيدنا محمد مثل المصطفى محمد سرا وجرا في برايا سمدي مد لنا الإسلام والكفر ما وبنزية لكل سما يقود بسائر والباطن من أتاه لله في كل زمن خدمته عن العيوب أذهبت والاستقامة وصفا وعبت لبانا كون مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى رئيسا لكل من قد فضل الروسا خل خدماه فوق كل رقبة من سعر الخرى كل من خبى محمد مثاله لم يأتي فيما مدى وأبدا لا يأتي ثبت أنا ربنا ana rabbana ana rabbana ana rabbana ana rabbana ana rabbana ana rabbana ana rabbana lam yarid mislu fa mislu la yarid lahu siyadatu lahu albara yawma alasu walada safa huwal نبي والرسول والخليل والحبيب والإمام والدليل برأ البديع من خير جمال وسائر الخدوس عن خير كمال كون نبي منتخى منتخى منتخى منتخى منتخى منتخى منتخى محمد خير الورى مختار إن سمد إني أخاطب نصارى ترى في أرضهم لمالك مترى تيخنا بأنني لله حبد خديم خديم خديم خديم خديم خديم خديم لرسول الله وأنني ما سلت ساتبرئي من كل من بالكبر صوت جرئي ولا أداين سويت تنصري إن ساء من يمن بالتبصري سبحانه ربا إليه أتجي ومن تفريج الكروب أتجي أقربي ربا يخاد ما يريد من المنى من المنى من المنى من المنى من المنى من المنى لمن من الخلق يريد علي أسني أبدا وأذكر وبفادي ولساني أذكر أعبد بدين الإسلام مؤيدا لهما إسلامي والتصد لي بقولي ما يوما جميل حالمين جماعة الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون رايلا أو خاتنا والمستوى وسيلة إليه صلى بتسليم على عليه يا جملة الخلق صدور دي يوما في يواص مجرم على الأمة بكونية دارين عبد الله خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما خديما عبيدني عبد الله بكوني دارين عبد الله خديم عبد بن عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مبخد كل مجرم ومجرمة كتب أحمد سا- صلاة على نبي الله سي صلاة سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين borom Touba borom Touba borom Touba borom Touba borom Touba borom Touba borom Touba borom Touba borom Touba borom Touba borom Touba Seexul Xadim Seex Amadu Bamba ana soppi Sëriñ Tuuba jàmbaar ja borom Tuuba borom Tuuba borom Tuuba borom Tuuba borom Tuuba borom Tuuba borom Tuuba borom Tuuba borom Tuuba borom Tuuba borom Tuuba borom Tuuba borom Tuuba borom Tuuba borom Njaareem Seexul Xadim Seex Ahmadu Bamba ana soppe baayu Sëriñ Saaliwu jàmbaar ja Borom Tuuba Borom Njaareem Xaadimal Mustafa Xayrul Xadimi sëriñ bu mag borom jumaa ji borom màggal gi borom kaala gi muudu mbàkke baare xaadimu rasool cheikh ahmadou banba xaadimul xadim xayrul xadimi cheikh ahmadul xadim xaadimu rasool cheikh ahmadul mbàkki xayrul xadimi cheikh ahmadou banba cheikhnal xadimi cheikh ahmadul mbàkki xaadimu rasool cheikhnal xadimi cheikh ahmadou bamba cheikhnal xadimi Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba mu di ana ko sopp baayu Sëriñ Falilo jàmbaar ja Sëriñ yaa julli tundu jeewal Sëriñ yaa julli biro ndar ba sëriñ yaa julli ca géej ga julli gël waa julli baafali julli maayoon ba julli gabon julli limbar wali julli garam basa julli kabla bisa julli kongo belsi julli Cameroon julli île du Burundi julli Banana julli Conakry julli Girigiri julli Matadi julli Fuluba julli Kintima julli Birasa Modi julli Brazzaville julli Kabinda julli Lomé julli Assamé julli Kontona julli Conakry julli gabon julli mayomba julli limbarwali julli kalwa julli kablabisa julli matadi julli fuluba julli kintima julli barasiwil julli kabinda julli lume julli asame julli kuntuno julli gabon julli mayomba julli limbarwali julli kablabisa julli garambasa julli birasa modi julli sanosi julli sanosi serigne touba serigne touba serigne touba serigne touba jugleen magal serigne touba mbake jambar ja Sëriñ Tuuba yaa jëli Brazzaville julli Kabinda Sëriñ Tuuba borom jaareem xaadimal Mustafa xayrul xadimi Sëriñ Tuuba mooy borom jumaa yaa julli Brazzaville julli Kabinda Sëriñ Tuuba borom jaareem Xaadimal Mustafa Mustafa xayrul xadimi Sëriñ Tuuba mooy borom jumaaj mu way barasil la ajaari sant ne fa la nuyoog sa moodi fa la nuyoog sa moodi gaañana ko mee Sëriñ Tuuba kenn du la sorooti yaa julli baraasiwil sëriñ bi julli kabinda julli matadi julli fuluba julli kilintima julli banana julli konakiri julli kabla bisa julli gabon julli mayomba julli limbarwali julli galwa julli baafali julli garambasa julli birasa modi julli gabon julli matadi julli fuluba julli kintima julli barasiwil julli kebinda julli lume julli asame julli kuntuno julli galwa julli sanosi julli sanosi serigne touba julli sanosi serigne touba ana soppe serigne cheikh sirolo sana jambar ja serigne touba keroog la am maqama ibrahima fii bari ma yoon ba waaw yenn sëriñ bi la jël na réew keroog la gaal gay daw ba wàllu tisbaar sëriñ bi di jàpp ab madam bu sew dikk daal fay jaar dikk taxaw fa kanamam daal di ko laal Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba masaan jàppuma daal di amaal ba muy masa madam ba del si laal ko ne tuddi kon mu tàkk farbaal gaa yu badar ya ñoo ko booleeg jaram baa Sëriñ Tuuba borom jaareem gaa yi ba dara ñoo ko booleeg der ba lal ko ca mbeex ma sëriñ bi demul ca bal ba Cheikh Bamba daal di jàpp julli tisbaar gaa yi ba dara maamu mu li dana waar keroog la masa feeñal xar baax lu baax du baax ba weesu baax waaye bàyyi Sëriñ Saliou Mbàkke moo weesu baax moonu ko daa xibaar nun duñ ko duural ku yëbbu gëm ku yëbbu weddi buural yoor yoor la gaal gay teddi gëm ko naa kiri bisub di béer ja noonam ya naa noonam ya naa giri giri ca takkusaan la gaal ga kose dun ba ñu naa tabam marañ yay konte keroog la Sëriñ Tuubaa jëkk a gis kurmaana ak mi ne kurboy ñu ne maana mu jàll romb Karagwa Cameroun saa sa ndari la wàcc gaal ga ne fa ñuul waxtu la fay taxaw gaaña liit mu deqee ila Conakry tubaab yay soqi mi di la gaal gay teeri fii garam basa juróomi fan lay am ila kabla bisa fafe la daaw ma ci ay fanaan bi sër wale Sëriñ Tuuba borom njaareem foofa posu bu lëndëm la sore naag baa feli sëriñ bi mu dellu war ca gaal ga jaari lu mee jaari asame jaari kuntunoo daal di xëy jëm ndaw mi bëbër ca tee Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba ana soppe maami Cheikh Sidil Mokhtar jàmbaar ja bëbër ca tee Cheikh Bamba xëy jëm ndaw mi romb li goo sa kaw tuba weer ne fii na fanaan sa ya ca wawa waxtu Cheikh Bamba wéy moom te musula tiimal waxtu déglul ma wax la keroog ba sëriñ Tuuba jóge ci géej ga wàccu waaxu mosa sëriñ gaaya naan ko dellu ndar ga nga jaaroon gaago da ngay dellu ndar sëriñ bi dellu na ndar déglul ma wax la keroog ba sëriñ Tuba gontee fa ndar jàmm daaru salaam yenni si yan ba keroog borom darab ndakaaru moo ko siñeel alu ba dar daal koy dar ñu ne ko dellul mbàkke mbaate Tuba tey fu la neex dëkkati doo ayo ba bisub talaata benn ban jokkoor ga cekk sa sin la gonta ndar cey góor ga murit akub tiijaan akub xaadir ñépp nga ànd ak daam kasaa bi daal mu wàcc gaarub lugaloo sëriñ bi mu wàcc gaarub lugaloo réew may teeru mu jaari kër seex joro may teeru am fa àllarba ak alxames ak aljuma waa réew ma naan ko maraban seexan jama la dale njaabur jàpp réewum waalo ñépp ay siyaar si doomi doomi asaalo kajoor ne këj di kañ xaddiimal musawa waa kokki ñay sargal si bàyyi musawa keroog la soxna Fatima du maam ani sëriñ Basiiru muy siyaara daam sëriñ Omar Géey moo ko jël si kokki ci ndigalal Cheikh Bamba doona sàkki keroog la naa basiiru mi insa rabbi dana def nasiiru keroog la gonte foofu fanaani ciise kër julli siise xëy taxaw sànnoo si nganuk sëriñ siraloo nganuk sëriñ siraloo nganuk sëriñ siraloo nganuk sëriñ siraloo gi fi sànnoo si mu ne di ànd ak ku sopp xaadimal Mustafa jàmbaar ja nganuk sëriñ siraloo ga fa sànnoo si mu ne su ko xibaar si waa uroos ba yaqar ak na gëm gëleem la daarax daama ko damel ndam yamba te muy tox fii la sëriñ bi ware weeru koor wa wa be la fay jaanam ak tàngoor wa jëlay letil xadrija bamba naa leen bamba naa leen mun ke rek nakiiru xamee nañu leen waccul la si yuhibu ni yab yaddu yow ma wujju sama daatab yaddoo keroog la wax sëriñ siraloog waa sanna sëriñ bi keroog la wax sëriñ siraloog waa sanna sëriñ bi keroog la wax sëriñ siraloog waa sanna ana ku topp sëriñ siraloog mu baax keroog la wax sëriñ siraloog waa sanna war ngeen a sant yàlla tabbi ngeen aljanna tisbaari jeewal moo waral màggalu Tuuba sëriñ bi dina màggal gi waaju ko màggal am palaas ya gaal ga def leen ko ndànk tisbaari jeewal la sëriñ Tuuba yóbbu ndam la rijaale maase naa ko sant nanu la tisbaari jeewal lim defar ci diine kenn mënul koo lim xam li yow ma diini tisbaari jeewal jaawaral màggalu Tuuba ku ci rendi xaaf ñu far sa bon nga tis baari jeewal la murid yëpp yi mettin keroog ba muy dem ci géej ga dane maam Cerno Faati maam Cerno Faati maam Cerno Faati ana soppe maam Cerno maami Seex Aydara Mbàkke jàmbaar ja tis baari jeewal dane maam Cerno waxal murid yi nan dëgërlu tis baari jeewal moo waral waa mbaabu géej dootuñu wal sunguf déer seex ma baab tisbaari jawal jaawaral seex ibra faal seex ibra faal seex ibra faal seex ibra faal seex ibra faal seex ibra faal seex ibra faal seex ibra faal amadou faal seer njaay muridi ku bëgg seex ibrahima faal jàmbaar ja tisbaari jeewal moo waral seex ibra faal di baabul muridina yaaram bi naam faal tisbaari jeewal moo waral waa déenay jox na seex ma ndumbe xabaanay teen bu dul dey tisbaari jeewal moo waral sëriñ Masamba sëriñ Masamba sëriñ Masamba sëriñ Masamba sëriñ bi naam masan balaasan tisbaari jeewal jaawaral Maamoor Jaara magam borom saam jibal ko jëmam ngir borom saam tisbaari jeewal jaawaral waa daaru njaay di joobe si jinaa seex daaroo seen njaay tisbaari jeewal jaawaral waa kër seex ma samba jóob saam di yóbbu waa di komte ngir Cheikh Massamba Diop Sam tisbaari jeewal moo waral waa kër Cheikh Issa Diène waa këram di yóbbu addee Cheikh Issa Diène tisbaari jeewal jaa waral waa daan waa daan koo fa woo mun naa sugu Cheikh ji dey ndaanaan tisbaari jeewal jaa waral Cheikh Babacar Cargaan Njaay ñaanal murid ja nekk Pàkku Lambaay di jaay tisbaari jabal jaawaral waa kër sëriñ sire waa sana waa kër sëriñ sire lo waa sana di mag di magal ndaam yëpp ba daaru sana tisbaari jabal jaawaral Cheikh Modou Diaw Paxa jibal ko jëmmam ànd ak waa Paxa tisbaari jabal jaawaral waa kër sëriñ sire lo waa sana waa kër sëriñ sire lo waa sana mu di ànd ko sopp sëriñ sire lo jàmbaar la waa kër sëriñ si rek waa sann di màggal ndam yëpp ba daaru sann sëriñ Tuuba sëriñ Tuuba amul morom sëriñ Tuuba amul morom sëriñ Tuuba amul morom fa am morom muy sa borom bur yàlla ko def muy borom mu nuy bégal ba aljana sëriñ Tuuba yaay kenn ku wecc ci mbooloo birijaal yëpp dajaloo nga war leen amul koo nawloo fii ci dunya ak ca aljanna Serigne Touba kenn du la sorooti Serigne Touba kenn du la sorooti Serigne beeg Touba bi bi bëre kenn du wax ne mat si nii la sandarma rek sandarma ak soldar yëpp ko daaraamal ni gaa yi daar Serigne Touba Serigne Touba borom njaareem murid ana ko sopp maami Cheikh Sidil Muxtaar jàmbaar ja jërë ngeen jëf mbokki jullit yi mbokki